jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy ngëm gu néew ci waa kër yéesu nettali bi mu ngi cosaanoo ci màcc saar fukk ak ñett aaya juróom fukk ak juróom mark saar ñett aaya ñaar fukk juróom saar juróom benn aaya juróom luk saar juróom ñett aaya ba ñaar yowana saar ak ñaar saar juróom ñaar aaya benn ba ndaw ya saar benn aaya bi yéesu tàmbalee liggéeyam dafa dellusi ci dëkkam wax ca jàngu ba ñu bari xàmme nañu ko te waxoon nañu lu baax ci moom kii du doomu liggéeykatu bant bi ndaxte yusufa baayam ci kaw suuf liggéeykatu bant la woon maanaam minise kii du doomu maryaama magu saak yusufa yuda ak simon du ay jigéenam ñu ngi ci sunu biir ñi doon dégg yeesu dañu jaaxle woon ci ay waxam te ñu doon werante xel mu rafet moomu fan la ko jële naka lay defee kemaan yooyu Yuusu tontu na leen ci dëkkam ci mbokkam ak ci ñoñam rekk lañu dul ormale yonent benn bés bi Yeesu duggee ci benn kër ab mbooloo mu takku moo fa dajale woon ba mu tere woon leen a lekk moom ak ay taalibeem bi ko waa këram yëgee dañu ñëw jëlsi ko ndaxte dañu doon wax ne dafa tàggu ak sagoom yenn kilifa diine yi sax dañu doon wax ne rab bu soxor moo ko jàpp noonu ndey yéesu ak rakkam ñëw ñu taxaw ci biti yónnee woo ko mboolo mi dañu ko wëroon ba nit ne sa yaay ak say rak ñu ngi taxaw ci biti di la laaj waaye yeesu tontu leen kan mooy sama ndey ñan ñooy samay rakk noonu mu xool ñi ko wër naan sama yaay ak samay rakk a ngi ndaxte kuy def coobareg yàlla kooku mooy sama rakk ak sama jigéen ak sama ndey gannaaw gi bi mu soree Yerusalem ndaxte ay noonam dañu ko bëggoon a rey jamonoy feetu yawut la woon màggalu mbaar ya rakk Yeesu ne ko jóge fi te dem diiwaanu Yude ngir seytaane bi gis ñoom itam jaloor yi ngay def ku bëgg a siiw doo nëbb say jëf boo demee bay wane jaloor yu mel nii fexeel ba ñépp gis la ndaxte jamono yooya ay rakki boppam gëmuñu ko woon yéesu mënul woon def ay kéemaan lu dul teg ay loxoom ci ñu feebar te faj leen ci dëkkam ndax seen ñàkk ngëm fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii ku gëm doom ji am nga dund gu dul jeex ku déggadil doom ji amuloo dund gi waaye merum yàllaa ngi la tiim yowaana saar ñett aaya fanweer ak juróom benn